internationale. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne ci réew mi waaw Latif mon euh, may kontaan di la yóbbante ci ministre euh, Matar Ba sama mbégte yàlla sedd na ko suma mbégte si jaar-jaaram au niveau du ministère des sports tey président Macky Sall moom la yàlla jox prérogative muy nome ku ko neex yàlla dogal na ci mbaaxam moom yàlla Matar Ba jóge ci bopp ministère des sports waaye xamal ko ni mbir fi mu neexee foofu ngay demee fi mu neexee foofu ngay demee turam dina des ci département de sports ba ilaa yomi diin Matar Ba ministre des sports le premier ministre des sports à avoir apporté au Sénégal une coupe d'Afrique ñu bari foogoon nañ ne sax Sénégal du mës a am d'Afrique ñu bari xalaatoon nañ ko. waaye ci mbaaxam moom Matar Ba ku ne xam na ne ñëpp la federe ñépp la àndal jubóog naa ñépp loolu moo ko may ndam li Matar Ba yàgg naa ko wax bindoon naa ko boobu lii yëpp kenn xalaatu ko woon nekk ci bopp ministère de sports ànd ak ñëpp bëgg ñëpp boot ñëpp déglu ñépp loolu moo ko may lii kër bu doxee nii yàlla wàccee fa xéwal yàlla wàccee fa teraanga réew bu doxee nii yàlla wàccee fa xéwal yàlla wàccee fa teraanga mooy li ma wax tout le temps président Macky na fédéré toutes les forces na fexe ba pouvoir ak opposition na fexe ba force vive na fexe ba ñëpp ba xool yëpp dëppoo mais réew bu ci xëccoo bare bu si coow bare suñ borom mooy téye xéwal te loolu. ku nekk war na say jànge kon tey Matar Ba man damay sant yàlla damay sant yàlla ca na mu demee ndaxte mënoon na dem ba ci biir mbiri soppeeku waaye comme nañu defee relais quatre fois cent mètres yow dawalal sa cent mètres ba mu jëkk nga passé relais bi sa morom kooku may continuer kon tey ni ñun ñëpp nañu bokk ñaanal Yankuba jatara yàlla defal ko ndam comme ni mu ko defalee en tout cas ministre Matar Ba ñaanu Matar Ba si Yankuba jatara mën na nekk lu am solo waaye ngàccee ngalaama moom Matar Ba ngàccee ngalaama dafa neex ngay dem ci bërëb na nga doon liggéey ndoor ñuy jooy dëkk bi sa sa amul benn citoyen sénégalais bu bëgg si Demba motar Ba ci ministère des lool nag mooy xéewalam c'est c'est cela qui fait la grandeur de l'homme ngay dem ngay jóge ci bërëb ñëpp di la jooy waaye day am na si gis nañ fi ay ministres yoo xam ne ni ba ñu jógee seen ay département nit ñi dañ doon fecc am na fii fii fii au Sénégal am na ay ministres yoo xam ne bañ leen jëlee seen bopp département travailleurs yi seen bopp laa wax dañ doon jubilé moom loolu dalu ko loolu dalu ko président Abdoulaye Wade ku ne xam na ne ba muy dem sénégalais yi dañ ko gunge parce que jàpp nañu donte ne jëlee nañ ko fi def na liggéey bu rafet loolu la ñuy xaar si ab njiit bu la joxee mbir ne la jiital. da ngay fexe ba nang fa duggee nan la ko joxe boo koy delloo mu mel na mu meloon wala boog mu ëpp nan la ko joxe woon waaye bul fexe mukk mu wàññeeku bul la joxee fukk fexeel ba delloo ñaar fukk wala nga delloo fukk ak juróom wala fukk ak benn wala it fukk bi la joxoon nga delloo ko waaye bul la joxee fukk nga delloo juróom-ñeent mbaa nga delloo juróom mbaa nga delloo ñett loolu musiba la nuyul ma ko gërëmal ma ko ne ko maa ngi koy ñaanal lu ma mën bi jaay Seydina Muhammad